ci lu dul yàlla mooy laab gi nga xam ne moom lañ soxla te ku góorgóorlu nag xàgg ca yàlla nañ góorgóorlu te yàlla nañ ci yàlla xàggale doomu aadama benn muy waa àdduna wala muy waa alaxira ndégam ay jullit lañ wa alaxira lañ war a do therefore melow alaxira moo war a ëpp ci ñun ba lépp luñ dugg rek duggee ca melow waa laxira bu ñu duggee ci saalu sona bi sax ngir faj suñ yaram ca tàngaay wañ cay wut tàngaay woo mbokk yi nañu fàttali tàngaayu safara jullit bi doo ko gis ci benn mbir lu dul ne ma ngay gis àlaxira ca mbir moomu ndax ku nekk la ne ci yow mooy feeñ ci sa doxalin ndab lu nekk la ca nekk cay xeeñ boo duggoon tey ci kër nga gis ci biir kër gi mbir yu wuutee seetal ña nga àndal ku nekk lay mécceem daanaka mooy nekk soxlaam ca kër ga boo àndeek menuisier yaa ngi koy gis moom menuisier ba ma ngay xool teegu kër ga nañ ko defaree tabaxkat bi muy mason bi ma ngay xool mur ya ràbbkat yi ràbbkat bi ma ngay xool yére ya ki nga xam ne nag mooy defar ay tappi yooyu ma ngay xool tapp ya ku nekk lay sa métier rek daanaka moom ngay gis ca kër ga wax nañ ne boo fi toogoon ab wëlli yu aksi ñëpp jóg di ko ziyaare yow mi yàlla yëgati yaa ngay xool wilaaya ga ak yàlla ja waaye ki nga xam ne dafa jubale di sàcc moom ma ngay xool poche ya ndax mën na caa jot naka noonu ab jullit nag lum gis rek mu fàttali ko su gisee lëndëm mu fàttali ko bàmmeel bu déggee baat bu raglu mu fàttali ko bés bi malaaka ma di wal buftu bi bu gisee xéewal mu fàttaliko ko aljanna su gisee mbugal mu fàttali ko safara lépp lu muy dugg nag laab ga noonu buy julli yonentu sallallahu alayhi wa dana wax ne gor soo xam ne julli teew na di julli farata mu rafetal njàppam rafetal toroxlum rafetal rukooxam julli ga du pare lu mu nekk kafaara ci ay bàkkaaram fii defut bàkkaar bu mag mu ne loolu nag jamono lépp la mu ne ku julli ñaari rakka te bakkanam waxtaanut ak moom ci dara lu dul yàlla yàlla baal ko lépp lu jiital ci bakkaar wax nañ ne ibnu zubayr su daan julli dafay mel ni bant la ndax ragal yàlla gu metti ba nga gis picc di wàcc ci kawam foog ne ab bant la ci banti jàkka ci sallallahu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa rabba ibnu zubayri haka ibnu zubayrin haka wax nañ ne bés toog na di julli nekk na di julli moom ibnu zubair benn euh, doj ñëw dal ci kawam yóbbu dara ci yiréem te yëgut ko wax nañ ne maymoon ibnu mahran wax na ne musuma gis muslim ibnu yasar mu gestu mukk ci julli mu ne bés nekk na di julli ba benn côté jàkka ji màbb ba coola la indi waa marché ba ndax tiitaange moom mi ngi ci jullim yëgul ne sax dara xew na ali ibnul xuseyn su jàppaan ba bëgg kabar bu jàppaan ba bëgg julli da ngay gis kanamam eh, soppeeku ba zone buñ ko waxee ne ko lu tax nga mel ni lu la jot mu ne atadruuna bayna yaday man uridu an aqum ndax xam ngeen ci kanam kan laa bëgg a taxaw moo tax mbokk yi niñ waxee ci njàpp ak laab nañ ca seet laabu biir bala ñoo focus kese kese ci laabu biti naka noonu julli nañ ko defee niñ ko war a defee ci biti waaye nañu focus ci biir ka wax naa toujours ne ku fi doon dem ci salle de gym bés bu njëkk bi dix kilo rek nga mën a yëgati nga nekk fa lu mat fanweeri at mënoo rambu dix kilo mooy wane ne yow Euh, sa dem gym bi am na problème kuy dem gym mën naa am bés bu njëkk bi doo mën a yëgati dix kilos yu mat waaye noo fa gën a yàggee li nga gën a li nga mën a yëgati yokk nga gis nag ci ñun kuy julli fanweeri at te ba léegi su kabaree problème yam doon am ci fanweeri at il y a trente ans yooyu lay am ba léegi mooy xel mi ca marché ba ma ngi ca kër ga ma ngi ca nàngam mooy wane ne kon ba léegi julli gi des na julli ruuxam mooy yéene ak lixlaas mooy toroxlu ak xol bu teew julli mi ngi làmboo ak ay zikar ki deeyaaleeg yàlla aki jëf waaye la cay dimbale nit ki ba mu am lam ca bëgg mooy xol ba teew buy zikar xol ba teew buy jëf xol ba teew buy deeyaaleeg boromam ndax tudd su la lañuy yëg ba tudd su wanewut la ca biir daanaka tudd ga caaxaan la boo fi doon wax loo gëmut caaxaan la ñàkk wax looñ gëm nag mooy di julli naan ihdina sirat al mustaqim te suñ xelan ci leneen ñu ngi naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te soxla bu ñu am keneen a koy dégg waaye yàlla du ko dégg subhanahu wa taala loolu nag imam Ghazali wax nañu benn misaal boo xam ne danañu dimbale ba ñun ñëpp ñu mën a julli kemtalaayu nam waree mu ne gis nga jàngoro joo gis jàngoro joo gis nam toll ci kàttan lañ koy wutalee garab garab gu am kàttan mooy faj jàngoro jum ëpp kàttan waaye jàngoro bu ëppee kàttan garab ga garab ba du ko faj ne moo nit ki li koy xëcci muy jeñanteeg moom ci biir julli jàngoro la nañ ko wutal lu ko faj lu tolloog moom lu ko ëpp sax mu ne mi ngi mel ni waajoo xam ne mi ngi ci suufu garab ngir bëgg xalaat ci benn mbir waaye picc yi ci kaw garab gi di sab su leen dàqee rek ñu ñëwaat su leen dàqee ñu ñëwaat su leen dàqee ñu ñëwaat ñu ne ko gis nga fii garab gaa ngi picc yi duñ dem daggal garab gi soo bëggee picc yi du ñëwati garab goog nag mbokk yi mooy banneex mooy desire mooy the lower self feek rayuñ bakkan bi ak bëgg-bëggam xalaat yi nga xam ne moo ñu ñëwat julli du dem te yooyu yëpp nag ñu ngi koy reyee rey bëgg àdduna mooy la borom ibnu achir waxoon ne rësul xataaya huwa xubbul achila bëgg àdduna mu ne mooy bopp ñaawteef yi loolu nag luñ mën a ray la yàlla nañu ko yàlla rayal ku ñuy wax amir ibnu qays rahmatullah alayhi dañ ko laaj ne ko hal tuxaddisuka nafsuka bi cheyin min umuri dunya fi salaati ndax mos nga julli ba sa bakkan di waxanteeg yow mu ne ay xeej di ma jam ba ma dee moo gën a yomb loolu maanaa rey naa sama bakkan ba mënatul def loolu yàlla nañu reyal suñu bakkan te jafe na waaye ku ko jéem mën ko na fexe rek ba xam la nga xam ne moo ne ca gannaaw jëf jooja ngir mu mën ko yomb xamuloo ne soo xamee li ngay am rek la ngay daj yomb boo xamee li ngay am mooy soo xamee ne njëriñ dëgg-dëgg mi ngi ci ray bakkan bi rekk nga mën koo rey nan nga koy xamee mooy xam gi nga xam yàlla tabaraka wa taala ak ni màggaayam ak xam gi nga xam eh, adduna gi nga xam ne moo tax mënoo rey sa bakkan moo tax mënoo ko dagg tuutiwaayam soo xamee ni àdduna insignifiant yi ak ni yàlla màggee nga bàyyi li amul solo dem ca ki am solo subhanahu wa taala xam googu nag mi ngi juddoo ci listikaanatu wal xushuu tuutalal sa bopp rek suufeelal sa bopp rek nga jis màggaayu yàlla nga gis insignifiant bakkan ak insignificance am insignificance am bokk na ci nga jël yaakaar boole kook ragal ci sa digganteeg sa borom subhanahu wa ni ngay yaakaare yiw ci julli gi nga ragalee ko ñakk yiw ci gàttañlu gi ngay gàttañlu xol bi teew boo déggee nodd nga jàpp ne yaa ngi yomal lañu woote bu suturaal sa awra nga xalaat tamit sa awraay biir jër gi buñ defati bon waaye mbóot mi nga xam ne yàlla rek a ko yër soo jubla xibla it nga xam ne bàyyi nga lépp jublu ci néegu yàlla bi naka noonu bàyyi nga lépp jëm ci yàlla xam naa ne waxtu wi dab nañu waaye dinañ ci ñëwaat wasalaamu aleykum wa rahmatullah WPAT Patterson. Do you use Viagra or Cialis? Have you been thinking about trying Viagra or Cialis? What if we could promise you the same